ah gars yi coach bu Guinée bi waxati na de coach Aliou Cissé bi mooy wax na dinaa ñëw teg yëpp ci taaw bi coach Guinée bi nee na nee na nul arrangé wu ko défaite arrangé wu ko gagné rek maa ngi ciy ñëw na la naka la salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk setu tur seen sant ah ñun Sénégal xooluñu lu la arrangé de ñun tamit sunu ndam la ñuy wër de yàlla na yàlla may ndam waaye koo ngi di Kaba Diawara doon ancien joueur Guinée moom it nag doon coach bi comme Aliou Cissé génn ba wax que ni Sénégal. jamono yi mu toll nii moo gën a ëpp pression nag moom mooy champion d'Afrique waaye ñoom euh, poule bi ñu nekk poule bu métti la ba jàpp ne trois matchs yi ñu doon joué yëpp final lay doon génn nañ ci deux finales yi mu des troisième finale muy contre Sénégal mu doon match boo xam ne nii euh, nee na ñoom xel bu dal lañ koy footballé waaye it am nañ as tuut ci pression nag euh, bu ñu jëlee deuxième mën nañoo dajante kooku di Côte d'Ivoire te loolu dëkkam lañ ne day risque lay doon pour ñoom bëgg nañoo continuer compétition mu dem a dem dem nee na nag kon li war ci ñoom mooy ko gagner yemaatuñ foofu nul bi buñ ko amee mën nañoo garder seen deuxième place mais li leen gënaloon mooy que ñu gagné Sénégal te ñu ngi ciy def seen kéem kàttan fawuñu ci kafuñu ci match bi daal seen bakken lan ko teg ba raw ñu ñun ñu ñi nga xam dañoo teg bakken teg yaram teg lépp actuellement ah waaw baax na <laughs> mais génne na kàddu yooyu daal may na xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee kookee di ak Kaba a doon coach euh, équipe guinéen boobee mu ngi noonee waaye Aliou Cissé nag génn ba wax ci équipe nationale Sénégal euh, situation bi mu toll nii nee na euh, match yi ñu ngi koy jël benn par mu ngi noonee waaye rawatina bu Guinée bi duñ fa nekk c'est-à-dire xalaat amical ak yooyu ak noonu bàyyi mu sedd ak yooyu déedéet day métti te dinañ def le tout jéem a jaayante pour xool nu ñuy gagné am match boobee nag lu am importance lay doon nag euh, buñ jëlee ba lu gën a dañu gën a arrangé bu baax baax a baax waaye it yamaatuñ foofu nee na Guinée yor na équipe bu équipe bu baax vraiment waaye it euh, kooku génnee ci euh, match bi dugg na ci frère Guinée yi nga xam ne ñu ngi fii Sénégal nuyu na leen ak ñi xam ne ay Guinée lañ juddoo Sénégal mu ngi leen nuyu ba pare di leen fàttali ne que ni match bi mën naa ni ci football bi rek la yam waaye it bu mu laal leneen waaye nuyu na mbokk sénégalais yi nga xam ne ñu ngi vivre foofee ca Guinée même chose lu am solo la wax match bi bu mu dépassé affaire de indiscipline bu mu dépassé bu mu bu affaire de indiscipline am ay affaire de xiiroo ngaayoo ko xeex ak wax ju ñaaw et tout mën na yem ci biir terrain bi ñu mbalagante mais bu mu dépassé leneen mu ngi noonee loolu daal. la kàddoom yi di firndeel ma tax ma gën leen ko leeral mu doon kàddu yoo xam ne kàddu yu am solo la nag ñun ay africain lañ ñun ñëpp benn lan ca euh, dëkk bi nga xam ne fi nekk ni di compétir yàlla mën na ko yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Guinée yàlla ñu yàlla may ñu jël coupe d'Afrique des nations amin bu leen xeeb ñaani dégg ay affaire de logique football gagné nii ñaari ci na ñaari ci la julli leen di ñaan nag ndam amaat Sénégal loolu neex la kon nag na ñëpp ñaan bu kenn xeeb ay ñaanam kase amul leneen dëgg dëgg bëgguma ko woon nii nag ah sénégalais daal kenn du ko wax ne jëlal guerre bi yaa ko moom hmm? ndeysaan dégg naa journaliste yi paasan laa gis nga moom moo ma dee informé lu nekk paasan laa gis mu post ko ñu ne journaliste yi Guinée nii ak sénégalais yi ñoo bëggoon a combattre daal amul benn problème comme ni ko paasan waxee rek yéen lii lu ñu def nii yëpp pour provoquer leen sénégalais moom kenn du ko wane jëlal guerre bi yaa ñun xam ne ne ñun ñun ngeen nekk di xeexal parce que lii du seen guerre man xam naa loolu parce que jàll ngeen ba pare lii comme like sénégalais si boobu yëre yërëmande bi yërëmande seen yaram moo daw de ñu ñéemantal man understand naa loolu yëpp waaye man nag buggee moo ko woon nii nag dëgg dëgg buggee moo ko woon nii ay journaliste ay nii nii nii xam nga rek amul benn problème léegi nag nooy di def mooy ndegam ñoom provoqué nañ lañ looy def mooy school leen gars yi dóor leen gars yi ay four to five parce que lii dafa métti si xool lii kenn du ko def journaliste dégg